jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com euh, ñoom mbégte ànd ak boobaak léegi rek nañu ko tàmbalee ci màggalu Kazu Rajab ngir bañ dara ump leen ci euh, jamono ji nag ñi ngi fii ci Ndindi euh, toog ak Serigne Lamine ngir ñu bëgg mu sànni ci ay kàddu ci màggal gi rawatina nag ni nga xam ne rek noonu la ñu koy dundalee Serigne bi ginnaaw bi ñu leen nuyoo ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay topp ci 24actu point com. yéen ñoo ngi leen di siyaare bu baax sëriñ Afe Jaw mi nga xam ne moom moom site bi du 24 ak ak mboolem mbokk taalibe yi mu ko àndal yépp ci bisu Cheikh Mamadou Fadal bii nga xam ne mooy Kazu Rajab ngeen ñëw teew fii ci Ndindi ci njabootu soxna ami bintu Cheikh Mamadou Fadal ñu ngi nii ak sëriñ Cheikh Oumy mi nga xam ne mooy taawam di léppam ak mboolem njaboot gi Cheikh Mouhamadou Lamine ak mboolem seeni rakk di sant yàlla bu baax a baax ci ñëw gi ngeen fi ñëw ngir feddali bisub Cheikh Mouhamadou faadal ak yaatal ko ba mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ak bitim réew ñëpp jot ci te sit bii tamit yaakaar naa ne bu ñëwee ci bisub Serigne Fallilou wàcc na ndax daraam génn Serigne Fallilou ndax njabootuk sëriñ Fallu ay taalibeem léppam ñoo ko sos ndax Cheikh Jaw mi nga xam ne moo ko moom maamam sëriñ Buso Sëfoor kenn umpalewut nam deme seex ak Cheikh Mamadou Fadal kon nag bu taxawalee lii mu yëngu ci bisub sëriñ Fallilu kon loola wàcc na lañ naan xàndoor bu dammee ci waar wàcc na kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb Serigne Fallou barkeb bis bi mu bokk ci site yi gën a kawe yi Serigne Fallou gën a yëkkati ba ñëpp dégg leen ki ngeen ni laaj nag neex naa waxtaanee muy Cheikh du faadal xam naa damay ubbil Serigne Cheikh mi rek li ci des mu jottalil ma ko waaye ñun moom sant nañ ci mboo sant bu baax a baax ci njabootuk soxna mi Cheikh gépp moom Cheikh du Fadal Serigne Fallou nag. neex naa waxtaane lool guddi gii nga xam ne ci la gane woon àdduna muy kaxsu rajo muy guddi di ñaanuk yonente mi alayhi salaatu wasalaam yaakaar naa ne la Cheikh Mourtada doon wax booy seetaat ku ci gane àdduna ne néew ma dañ ko gis waaye du yomb kon xanaa kon dañ naan arfin ba arfin rek la ndax la nga xamee ne moom la ko Sëriñ tubaa daa seereel naan Mouhamadou Fadel daal fu mu feeñatoon fu tut fii dinaa ko wuti ba am ko kon ndokk ba nga xamee ne kon fii la mu feeñ ci guddi googu muy guddi Kazu Rajab muy màggalam gii tey boo seetee nag Sëriñ Fallilu ay mbiram bis bu set ay gën a kiimaane rek ndax jamono jii xat na lool waaye day bisub tayam bii day mbokk mbokki jullit yëpp mbokki taalibe bi yëpp fàtte nañ xat-xati jamono sax ne tawat am na ngir pas-pas ngir yéene ngir sopp ngir bëgg gi ñu am ci Cheikh Mamadou Fadal tey jii ku ñëw fii danga naan ñii day xalaatuñ ne sax ay mbasak yooyu am na ngir lan ngir xër ci sëriñ Fallilu nga xam ne dañ naan lu leen ci fekk rek ñu jël te dara sax loolu di leen ci fekk ndax sëriñ Fallu moom moo man kanamam man ginnaawam maanaam kay day saafara waaye du tawatal kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb sëñ Fallu bis bii muy bisub saafara saahiran baati baatinan ci lépp loo xam ne nit ñi jullit yaa ngi koy ragal ak ak ak ak du julli sax suñ boroom ci darajey bisub Seex Mamadu Faadal bii mu saafara lépp tawat yëpp ak jàngoro yëpp ak njàqare yëpp yàlla saafara ko ak rëng-rëngi àdduna bii tamit nga xam ne mi ngi fi ci suñ jamono jii sëriñ Fallu mi nga xam ne moo man kanamam man ginnaawam yàlla na nu saafaraal lépp ba réew mépp nekkaat ci jàmm ak salaam tey sax nag moo ko def ndax xam ngeen ne de bisub Serigne fallu bii lu dajeeg benn rëng-rëng moom te loolee wane na ko ndax jàmm ñaa ñetti fan yee weesu ca ginnaaw ñépp amoon nañ jàqare lool waaye bi bisam bii jibsee ngeen war a xam ne ñëpp taalibe yëpp seen xel ci dal ci ne bisub Serigne Fallou moom jàmm rek am kon nag jàmm joojee ñu ngi ñaan ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal mu sax dàkk nag ba lii bañ fee amati murid yëpp ak jullit yëpp ak taalibe yëpp nekk ci jàmm moom Cheikh Mamadou dem kon dama noon naa ubbil alaaj Cheikh rek li ci des mu mottali ko yéen ñi nga xam ne tamit yéenay ndaw yi ñëw fi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan ci barkub Sëñ Fallu yàlla yokku leen te barkeel liggéey bi barke Cheikh Mamadou Fadel jërë ngeen jëf ñu ngi siyaare suñu waajur wii toog di soxna Maguette Dieng mi ngi nii toog suñu wet nga xam ne mooy waajuru soxna Ami ak soxna Mamouso Serigne Cheikh Oumy ñoom ñëpp ñoo ngi leen di siyaare tey jii kat dañ naan lu jiit jaaga mooy jaag ndax moo àndoon ak waaju baax joojee ba meññ ca ñooñe ba lii lépp xew kon nag ñu ngi ñaan ci barkub sëñ fallu lii nga xam ne am na ko ci liggéeyal sëñ fallu yàlla na yàgg lool mu ñu ànd kook moom lool mu gunge ñu ba ca kanam a kanam a kanam soxna Ami Seex tamit duñ ko fàtte mukk di ko ñaanal fee mu nekk yàlla yokki leeram ndax kat lu matoon a def lu ne def na ko lii lépp mooma teetañu ñu bate lañu gunge ñu ba lii lépp am kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb Sëñ Fallu yàlla nañu ko yàlla fayal jëmm la joo xam ne day matuñu seere ci moom nit ku nu bëggoon nit ku nu taxaw nit ku nu dimbale saahiran wa baatinan kon nag ñi ngi koy ñaanal ci barkeb Sëñ Fallu yàlla mi nga xam ne tëlawul dara njabootam gi yàlla tef def ci barke ba li ñu yéene ñoom it yàlla mottali ko sant nañ gërëm nañ wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.